asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi mbokk taalibe yi maa ngi tudd docteur Mor Diagne jiite regroupement pharmacien yi nekk yi nekk ci région de Diourbel euh, ñoo ngi ànd ak euh, docteur bay Mor Ciss mu nekk euh, direction régional de la santé bi nekk Diourbel donc tey li ñu fi dajal woon mooy waa daayira Muxaddamatul Xidma te sëñ Abdou Lahad Bousso jiite kuréel gi ëmb wàllu santé bi dañoo ju amoon benn lot de médicament maanaam ay garab yoo xam ne benn association bu nekk euh, Italie Toscana plus précisément ñoo ko jébbaloon ci infirmerie bu grande mosquée bi ñu xëy si woon nag tey saytu garab yooyu di ko def li ñuy wax trier ànd ci nag ak euh, regroupement des pharmaciens de la région de Diourbel ñu euh, bari teewoon nañ fi tey ak pharmacien du public yi nga xam ne ñi ngi ñëw ci euh, njiital Baye docteur Baye Mor Cissé euh, nga xam ne euh, pharmacien bu jógee hôpital Matlabul ni mi ngi fi pharmacien bi jóge hôpital Cheikhul Khadim mi ngi fi pharmacien bu jóge Ndaamaatu mi ngi fi ñun ñëpp ñoo fi nekkoon nag tey doon saytu garab yi ak di ko tànn ndax garab yi bari na ak lot de matériel médical bari nañ bari waay boo xam ne infirmerie bu grande mosquée bi rek mënul koo jëfandikoo ñoom ñëpp moo tax euh, ñu woowoon leen ñoom ñu dikk xool li nga xamante ne ni euh, buñ ko yóbboo ci seen fa ñuy seen bërëb maanaam ci hôpitaux yi ak ci district bi dana fa amal njariñ askan wi danañ ko mën a jëfandikoo euh, ndax garab yoo xam ne wax dëgg yàlla garab yu mucc ayib la molécule yu rare te cher buñ ko doon jënd fii ci pharmacie bi donc euh, bu ñu defee daal suñu estimation ci li ñu gis fii ci garab yi mën nañu ne xam naa ne bu ëppul cinquante millions tamit jege na ko waaw ndax euh, molécules yu baree bari gis nañ fi sax benn benn ñetti boîte yoo xam ne ñu ngi koy utiliser ci cancer de la prostate benn boîte bu nekk rek mu ngi jar un million sept cent gis nañ fi ñett ci yooyu donc pour waxee ne rek vraiment garab yi garab yu bari am qualité la te garab yu am njariñ la aussi jàpp nañ ne daal euh, lii warta dakk ndax euh, lii euh, tax sëñ Abdoulaat yaatal ko wax dëgg yàlla njariñul askan wi la ndax mënoon na ko téye ci jumaa ji ne ñun lañ ko jox rek yaatalu ci kenn bu bari waaye lu bari day périmé ci loxoom léegi du ko amal njariñ du amal njariñ askan wi waaye wax dëgg yàlla deful loolu daf ñoo woo ñun ñi nga xam ne suñu xam-xam ci loolu la màcc ngir ñu saytu ko xool lu nekk fa mu war a dem ñu yóbbu ko fa nit ñi jariñu ci ci lu ñu dul fay dara waaw loolu daal lañ ne woon nañ ko tënk euh, jiitale ko waxtaan yi ñu bàyyi docteur Baye Mor mu am kàddu yum ci sànni. ok jërëjëf euh, docteur Mor mordian xam naa fi mu daaneele rek laay sof tàmbali ci sant waa daayira mu xaddimaatul xidma ci liggéey bu am solo bi nga xam ne euh, def nañ ko ci jumaa ji jëmoon ci ay lot de médicament yoo xam ne dañ ko mettre à la disposition de la région ma ñëwoon fi teewal fi la direction régionale de la santé de Diourbel ci njiitu directeur docteur Mamadou Dieng mu yabaloon ma fi ginnaaw bi nga xamante ni yëg nañ ni am na lot de médicaments yi ñëw fii ci jumaa ji te sëñ ma docteur Diagne informé bi ma informé aussitôt également Euh, jokkoo naa ceeg sama kilifa di directeur Mamadou Dieng di DRS bu Diourbel bu ñu ko waxee tamit jox nañu ndigal ñu ñëw saytu liggéey bi fii bañ xëyee ba léegi ci loolu lañ nekk doon trier maanaam médicament yi nga xamante ni moo fi nekk wàll wi nga xamante ni moom la euh, niveau hôpital war a jëfandikoo ak li nga xamante ni moom la waa district centre de santé ak poste de santé mën a jëfandikoo ñu ngi nii nopp ci liggéey bi ba kenn ku nekk yaa ngi jël li nga am ci wàllu woowu di sant bu baax di garantir également di rassurer euh, ne médicaments yi nga xamante ni moom lañ doon saytu tey jaar na fépp foo xamante ni document war na faa jaar ci saytu garab yi ci euh, autorisation bu nga xamante ni euh, agence bi nga xam ne moom lañ dénk lu mel noonu muy agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique di ARP joxe nañ seen autorisation pour garab yi mën a dugg kon loolu dina rassurer ne rek garab yu mucc ayib la garab yu baax la yoo xam ne fi mu war a jaar ci saytu jaar na fa ba mën a yegg ci askan wi mën koo jëfandikoo kon dañuy sant rek bu baax a baax ci turu directeur docteur Mamadou Dieng di sant waa mu Muxaddamaatul Xidma ci taxawaay bi am solo bi nga xam ne def nañ ko te lépp di jëm ci rek askan wi nga xamante ni mooy njabootu sëriñ bi di ngeen sant bu baax a baax a baax jërëjëf salaamaaleykum wa rahmatulah mbokk yi ñu nuyu di fay mbokk yi am nuyoo di sant yàlla bu baax ci bisu tey bii nga xam ne tey yàlla dogal na day na mu xadamatul xidma bu jumaay Tuubaa ci xalaat bi mu amoon ci fexe ba def am faj ci jumaa ji tàmbale ko fii mm, yàlla dogal ñu dem ci lijjanti garab bañ koy lijjanti mi ñu bëggoon bu ñëwee. mu doon loo xam ne ñun dañ ciy jariñu dëkk bi jariñu ci ñeneen mën cee jariñu ndax loolu mooy liggéeyu daayira Muxaddamatul Xidma mooy fi ñu nekk ci fi nekk nga xam ne da da ngay tàmbalee ci moom di jariñu ba fa àdduna yam loo taxoon bi ñu wut wutuñu woo loo xam ne rek day yem ci infirmière yem ca dañuy seetoon loo xam bu ñëwee danañ ko mën a jariñu mbokki teel bi mën ko jariñu ngir daayira bi participer ko ci faju dëkk bi fajub région bi ak fajub réew mi yëpp moo taxit noonu ñu ko waxee lépp loo xam ne bi biñ ko soxlaa ba ba mu ñëw ci yenn mbokk taalibe yu nekk euh, Espagne yu nekk euh, Italie comme bëkk démb bi nga xam ne Cheikh Mamadou Bassir Cheikh Abdou Khadre ñëwoon na fi ànd ak district bi ak pharmacien ngir doon ñu doon jëbbale liggéey bi ñu ko defee ba noppi nag ci la ñu woo dajal woon tey pharmacien yi ndax daayira Moukhaddamatoul Khidma ni muy def mooy mépp mbir mu jóg day seen ñe seen xam-xam jëm ca loolo mu woo leen euh, ànd ci ak loolu ndax loolu alxuraan moo ñu ko digal na ngeen laaj ñi xam bu fekkee xamul fasalu ahli sikri in kuntum laa taalamuun te mbir mu nekk boo bëggee boo ciy def la nga ci bëgg nga mën ko ca am bul ci doxee na nga ca xalaat doxe ca ka ko jàng xam ko moom lay miccaam mu doxe ci noonu loo taxoon tey ñu daje fii ci turu sëriñ Afiya bu sa imam mi jiite daayira Muqaddamatul ma waaye ci turu membre daayira Muqaddamatul Xidma yëpp ci garab yi nga xam ne mbokkum taalibe bu baax di sëriñ Ibrahima Dieng nekk fee ci Toscana mu ànd ak mbokk taalibe ya fa nekk yëpp te jëwriñ yëpp bëkk dem rek ñoom ñëpp teew nañ fi ñu ànd liggéey garab yii ti nee nañ li a tàmbali la waaye fas yéen nañ yeneen ak yeneen ñëwaat ngir mu ñu mën a participer nga na eh, noonu ñu leen ko waxee nag dañu wax ne jumaa ji moom dafa war a doon loo xam ne dafa war a doon bopp bi nga xam ne fépp fu taalibe yittewoo dara ci réew mi Euh, daayira bi jumaa ji war naa a taxaw ngir féetle fenn kon nag yéen tamit nag yéen ñi nga xam ne yéen a yor métier mi ndax mënoon leen a wax lii ngeen yebal seen ndaw rek mu ñëw kon boobaa dana am loo xam dana baax waaye am na la ngeen ci xam dëgg-dëgg du ngeen ko xamee noonu waaye teew yi fi nekk xam leen nag lam yittewoo yitte jooju ngeen ko jox ba teewal fi seen bopp yéen kilifa ngi leen ci sant bu baax di leen ci gërëm te lu ñëwoo ci lu mel nii da ci am mbégte dont nañ ñun li ñuy def yéen lañ koy defal yéen li ngeen def li ñu ko defal ndax dem nañ ba poste santé euh, ki infirmière bi nekk ci biir jumaa ji euh, ajjuma ju jot waxtu julli benn euh, médecin dafiy ñëw ci loolu taxawaayu district bi la kon nag looloo tax ñu ne lu ñuy def dañ koy jaaral foofu tey ji ñu ngi sant waa district bi docteur Ndeye Maguette waaye di sant docteur Mamadou Dieng nga xam ne suñu kóolër la bu yàgg ak ñun ci rafetal aw doxinam ba ci koor gi ren gii rek def na dala déplacement jóge foofu ñëw fii ànd ñun dogu si ci biir jumaa ji bëkk démb rek ñëwaat na fi eh, kon moom moomu taxawaay boobu mu taxaw nag ba ci docteur Mahamadan Lo bu Feera ñoom ñëpp seen taxawaay ci daayira Moukhaddamatoul Khidma dafa ràññu ko damaa jëla la sax seen alal diñ ciy def waaye waxtu nekk lépp xalaat na bu ñu ko defee liggéey bi gën a jëm kanam ñi ngi lay woo di la ko conseiller di la ko xalaatal kon ñoom mm, ne ci yow la ko dalee ci ministère bi jëm suuf ndax garab yi bi mu laataa ministère de la santé docteur Ibrahima Sy euh, ak ñi collaborateur yi fi nekk yëpp ñi concerné fa ñu ba wàcc ba suuf daal ba yéen ñëpp leen di la demee xidma mooy loo xam ne da nga ciy liggéey te yaakaar ci fayu yàlla kese loolu bu baax nag yéen association pharmacien yi tamit seen taxawaay bu rafet ci màggal yeeg ajjuma yeeg yëpp ñu ngi leen sant bu baax bu ñu ko tegee ci loxol docteur euh, sëñ Mor dana ko eggale sëñ Baye Mor ñu ngi lay sant bu baax ndax xëy na tey la miinante bi waaye gis nañ ni yitte ji ak yëg-yëg yittewoo liggéey bi ñu ngi lay jotale ay cant gi ngërëm di leen ñaanal yàlla sunu borom kàttanal leen ba li ngeen yéenee ci ay liggéey bi ngeen am ko lu kaw seen jot ñu ngi sant yéen ñëpp daal mbokk yi nga xam ne ñoo ci taxaw yëpp tamit ba garab yi am ñu ngi leen di tàll loxo ci yeneen man yeneen métier yu ñu yittewoo ci barab bi te xam ne barab bi moom lu fi ñëw lu nekk rek day tasaaroo fii jëm ci ña ko yittewoo ñu ngi leen di sant baax di leen gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu.